ahlan wa sahlan wa tarhiban bila adadi salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi siiwul seen site internet bi di 24 actu yi ñoo desiwaat ak yéen ci seen naafilay weeru koor wi tey nag ñu ñëw ak yéen ci naafila guddi fukkeel gi ak ñett ku ci julli ñaari rakaa rakaa bu ne faatiha benn yoon qul huwallaahu ahad juróomi yoon ñu baamtuwaat ko ñaari rakaa lay doon rakaa bu ci nekk fatiha benn yoon qul huwallahu ahad juróomi yoon wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu riwal madadi ahlan wa sahlan wa tarhiban bila adadi